victoire rek ñun jusqu'au preuve xoolal jusqu'au minute jàpp nañu suñu leader bi il le futur président jusqu'au dernière minute dañ ko gëm dañ ko gëm ba dernière minute lu ñu am jël ñoox moom jusqu'au dernière minute lu ñu am jël parce que nag moo ñu ko ji ah moo fi def lu kenn deful ku def lu kenn deful am lu kenn amul ñun nag la ñu ñaan ñëpp ñëpp ñëpp ah ñu àndal dal bu ñu provoqué kenn bu ñu def dara dëkk bi bu ñu ko yàqee ñoo ko moom dëkk bi bu ñu yàqee ñoo ko moom nañu delloo si suñu xel preuve génn na incha allah sa kanam rek la jëm beneen preuve dina génnaat. man nam Ousmane Sonko moo fi nekk politicien boo xam ne lii yëpp mi ngi wiiri wiiri di daal tey la ñu waxoon ne tey mooy final bi mais fu ñu yóbbuwaat encore. kon Ousmane Sonko am na ndam président Ousmane Sonko am na ndam Macky Sall président Macky Sall lu mu la leeree ni doo bokk ci élection ñun noonu la ñu leeree ni président Ousmane Sonko dina bokk ci élection te dina doon président. tey jii nii ñun kontaan nañ ci juge bi li nga xamante ni jël na ko comme décision parce que loolu rek lañ soxla ci ñoom parce que ñoom ñi nga xamante ni ñooy ay juge ak ay avocat ak i magistrat nañu xam ni Macky Sall dans trois mois mu réew mi war ñoo bàyyi ak suñum réew continuité la. waaye nag gis nañ ay patriotes yoo xamante ni ils sont déterminés gis jeunesse boo xamante ni ils sont déterminés ils engagé engagés pour que leur pays change. li ñuy woote naan ku woote ñu naan da ngay woote xaw ma institution xaw ma lañ koy wax ñoom ñoo njëkk a woote loolu ñoom nit yegg ci kaw loi nga yaakaar ne kursi yi përëm ñu ne moo feeti ci kaw léegi tribunal atte kooku atte naan dama koy delloo ci suuf. dañuy foye mel ni ay ay bay ñu lañu te dañuy wut ay ngot ak yeneen dem xëy ak ñoom loolu mooy jeexal waa ji de waaye justice du ko jeexal